Mm, processus parenage bi dañoo seetlu ne dafa bëri coow après parce que ñu ci bëri comprendre uñ lan moo tax jàlluñ deuxièmement techniquement logiciel bi ak yenn méthodes yi ñu utiliser leerul ci boppi ñu bëri parce que il faut tam ñu wax ne suñu système bi soxla na parrainage parce que dañoo bëri pari parti politique bari ay candidat be foog ñu am loo xam ne moom moo leen di segg li ñuy seggee nag moom mooy li am jafe-jafe moom mooy li am difficulté moo jar ñu waxtaanee ko ba balaa ñoo ñu génnee ci lii laaj na ñu toog waxtaanee ko benn ñaareel bi mooy laaj na règle yi ñu leeral ko ba bu subaa ku jàllul ñu mën laa wax yow nga xamal sa bopp ne lii moo tax ma mais aussi techniquement mën nañoo gën a defar yëf yi techniquement ba coow lu ci bari yàggaay bi muy yàgg yooyu yëpp ñu régler ko ba bu ñuy demati ci yu mel nii du jur werante du jur coow à